mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen télévision As-Samadiyya ñu leen di toppal jeexiti kenn ci njabootu Serigne Touba gi di Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag nekkoon na fii tey ci bërëb bi ñuy wax Mbacke Bawol nekkoon na fii comme niñ ko baaxee niñ ko baaxoo xam rek mu nekk jëmm joo xam ni si liggéeyal Serigne Touba rek moo ko ñoroon jëmm joo xam ni jariñ mbindee fi rek moo ko ñoroon. jëmm joo xam ni yar ak tàggat yi moo ko ñoroon ñoo ngi fii ci Mbàkke Bawal ngir dajafeek benn mbokkum taalibe ñu gën koo miin ci sëriñ Abdoulaye Sarr sëriñ Abdoulaye Sarr suñu borom dogal mu gane àdduna ci kanam Cheikh Abdoulahi Mbàkke borom dër bi sëriñ Abdu borom dër bi moo ko tudd tuddee ko boppam tuddee ko Abdullah mu nekk jëmm joo xam ne nag ku gëstu la lu bari ci dunduk Cheikh Abdoulahi Mbàkke borom dër bi moo tax ñu dikk ba fii fekk si ko ci Mbàkke Bawal fii ci këram ngir laaj ko ci dunduk Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi sëñ Abdoulahi Sarr kon ginnaaw bi ñu la nuyoo dañ lay laaj rek Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi dégg nañ ni ko amoon gis-gis bu sori la loolu di wax vision amoon gis-gis bu sori la ci wàllu mbay ko amoon gis-gis bu sori la ci wàllu développement ci ñaari wàllu yooyu daal lan ngañ ci mën a baaxee vision Cheikh Abdoulahi Mbacke ci wàllu développement lan ngañ ci mën a baaxee aouzu billahi min asheytaan irajim la hawla wala quwata illa billah aliyul azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yi mbokki julli ji bokk taalibe yi mu bokk Daaru Rahmaan ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, sunu borom bàyyil nu fi sunu xalifa yi sunu yaakaari tey ëllëg say Muhammadu Mur sëñ Muntaxa sunu borom bàyyi ko fi ak njabootu Serigne Touba gépp ak njabootu lislaam gépp ba liñ bëgg a liggéey lislaam ñu liggéey ko ba daje cee ngërëmal Serigne Touba sunu borom bàyyi leen fi ba ñu dund téeméeri at ak lu tegal te lépp dina njëriñu lislaam euh, ki ngeen may bëgg a waxtaan lool nag waxtaan ci moom dana ma jafe lool ndax <coughs> day nit koo xam ne kii bokk ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moom yàlla mayoon ko cëru boppam boo xam ne bii cër boobu kenn fekk ci ci wàllu gis-gis ak ci wàllu liggéey yi wàllu gis-gis maanaam maanaam ci wàllu li tubaab na wax vision daf ci amoon loo xam ne te li bi maanaam kenn fekk ci ndax bi muy sañc Daaru Rahman euh, dafa dem ba lim fa jëkk a bay mooy dugub la fa jëkk a bay ak gerte mu seet xam ne lii boo bayee mbay mi ñetti weer lay di am bu bayee ñetti weer toogaat juróom-ñaari wala juróom-ñeenti weer moo xam ne lii du doxal am réew te bi muy ne njaareem yàlla baaxe ko mu amoon gis-gis ci dër bi nga xamante ne bi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba moo Rasul daa na ko deflu ci njaareem te Serigne Seyid Mbacke da yoroon ko mu ne nag ginnaawu lii kat moom fii ci Daaru Rahman suuf si joor la te. mbayum gerte ak mbayum ki coono bi bari na frais yi bari na te rendement bi bariwul mu gisaat moom beneen gis-gis ne lam gisoon njaareem way juróom ma di ko def ci njaareem yaakaar naa war naa mën a def expérience bi fii ci Daaru Rahman euh, bi ma ko fi defee mu daal di woote taalibeem bu mag bu ñuy wax sëñ Mor Ñang fekk booba mi ngi ànd ak sëñ Xaasi Mbàkke di xaritam euh, bi mu ñëwee mu daal di woolu sëñ euh, Mor Ñang moomu di mag sëñ Saam ñaŋ mii moo fi nekk fi mu ne ci mag ñi moo ko sëñ arajatare yal na yàlla guddal seen fan wéral leen bàyyi leen sunu kanam te yàggal fi sunu xalifa bi sëñ Modou Habib ak njabootu Cheikh Abdoulaye Mbacke gépp ba liñ bëgg a liggéeyal seen maam euh, ñu daje ci ngërëmam kon loolu bi mu demee nag mu daal di ne léegi kat euh, waxtaan ceeg sëñ Mor fekk booba Daaru Raxmaan da ko séq ak ak ak ak sàmmkat ñu di ko wax bilal Moodi muy euh, sunu mbokk yi dëkk pël yooyu saseeg noonee xam nga moom ginnaaw dafa ñëw bëgg fee def lu mel noonu te seq kooki ay pël la mu jëkk def mooy wax maanaam waxtaan waxtaan waxtaanu bokk li ñuy wax naa diplomatie mu yónnee woolu mag ñi ñu seqal daaru ak ñi nga xamante ne bi ñoom la fekk daaru ak suñu bokki pël yi xamal leen ne leen liggéey bi kat dama am lu ma leen bëgg a liggéey façon liggéey lu ma leen bëgg a jàngal woo xam ne bi yaakaar naa ne bu ko ñëpp maase woo di ko jëfandikoo mooy gën a yo mooy gën a ëpp njariñ ci bay gerte ak dugub ñu ne ko boobu ban façon mbay la fekk booba euh, yónnee woon na jiwu salaat salaat moom lañ jëkk jëkk def foofa ba mu dikkee mu daal di woolu sëñ ma euh, Mor Ñang moomu ak sëñ Saam Ñang ñoom ak magi dëkk bi waxtaanteeg ñoom ba juboo ci waaye fekk ci am na ci kenn ci bokki dëkkandoo yi ci bokki pël yi koo xam ne ki musul nangu nag ñu def fa loolu ndax ñoom ay jur la ñu yor te jur ak loolu méngoowut waaye loolu diggante bu sew la boo xam ne bi jarul dugg waaye teewul moom bëggug sëriñ bi moom ginnaaw bëgg na ko rek la mu bëgg moom dana am euh, ba mu ko bëggee nag euh, mu daal di leen di won daal di fi jël lu ma doon te di di téeméeri mètre bi ko jëlee ñu daal di ko làkk bi ñu ko làkkee ba noppi moom ci boppam mu sol daal la ñu tedd mu rëddal boppam plan yi rëddal ko ni mu war a toll ak maanaam ci guddaay ak ci yaatuwaay ba noppi bi mu joppee loolu ba noppi daal di génnee jiw yi ci posam ñu daal di arrosé foofa bam mu dafa defar plan yi ba defar plan yi na mat mu jël eh, jiwu salaat woowee def ko fa daal di sant sañ moor Ñang moomu ak sëñ Saam Ñang ne leen nag dee leen ko roose suba ngoon di ko roose suba ngoon te nekk nag bu ndox mi bari maanaam ñu ñooñu nekk foofa di ko def di di di toppatoo liggéey boobu di toppatoo liggéey boobu ba nga xamante ne bi léegi salaat si jóg na léegi bi salade si jógee nag. nga xam ne maanaam genre pépinière la ko def maanaam euh, plan boo xam ne bii maanaam ci la ñuy génnee génneewaat jiwu ñu mën a maanaam euh, yaatale li mu bëgg a liggéey bi mu bëgg a bi mu ko defee nag mu daal di ba ba mu toll ci war a jëmbataat nag léegi mu daal di defaraat yeneen plan santaat ko mbooloo mi ñu defar ko mu daal di ko multiplier maanaam mu yokk ko bi mu ko yokkee nag maanaam moo waral ba fi mu nekk nii boo ko seetee quatre-vingt pour cent màggalu Tuuba liy produire ci Daaru Raxmaan ak ndokk loolu lépp ci salaat liggéeyu sëñ Abdou Mbacké la ak barkeel bu mu xam ne tamit xalal na ko yoon ba ñoo ne ci tey bi nga xamante ne bii def na loolee na ba ñëpp nag nàmpatal leen ci mu noob nag nag léegi nag ginnaaw lii moom nit ñi léegi mokkal nañ ko mu daal di génnewaat beneen façon liggéeyam maanaam li ñu wax maanaam maanaam wut ay ar maanaam li tubaab di wax arboretum maanaam ay pépinière yoo xam ni ay garabi lekkukaay lañ fay def ay mangoog ay guyaab ay papayaak ay xeetu ñam yi daal yëpp mu def ko fa ba nga xamante ni man na nag léegi mu daa di ko palante bi mu ko bi mu ko jiyee nag waxaat waa taalibe yi ñu di ko arrosé bi ñu ko arrosé ba mu màgg nag léegi nag bi nga xamante ne bi léegi dër bi ci boppam ak siyaan la woon goo xam ne gii euh, sëriñ góor yi moom sa safaru sëñ Saaliw xamal na ma ne ma euh, sëñ Saaliw mas na ko wax ne ko Daaru man day sayaan nga fa jëkk bënn man mii la sëñ Abdou jox satal ak ndox na ma wàqe fii ba ma wàqe ba mu xóot ma suul ko fa ba mu am ayu bis bi mu dellu si waate ba ñu ko dindee la bëtub seen boobu yëpp bal la ne sëñ Saliou moo ko wax góor a jéy loolee ca la seen googee doxee nag léegi ñu daal di di fa dem ba di fa multiplier di fa bay ceeb di fa bay lépp nga xam ne di fa lépp bi mu amee bi nga xam bi dër bu mag demee ba yaatu ba yaatu nag la daal di wutaat nag dër bu ndaw dër bu ndaw boobee nag nga xam ne maanaam bi lekk lañ fa daan bay ñambi joojee daana presque daana mat ay 3 ak 4 hectares nga xam ne danaan def bu ñu bu jë gasum njàmbi mi ño bu njàmbi ji ñoree bañ ci ko gas day woote waa tund bépp ñu ñëw buddi ko dégg nga ko jëmbataat ko lal ay baas xol li ñàmbi ji fejar ko weer ko ba mu wow ñu sol ko ci ay saako buñ ko solee ci ay saako ak gerte gi dimb yi boobu Daaru Raxmaan li fi di ay dimb kem xamu nu mu toll waxtu bi dimbee ci war dimb yi àggee ci waru ñorit day daal di yeble maanaam liggéeyu sàkk dimb bu ko defee waa tudd ba bépp dimb xam nga dimb moom bala ñu koo mën a xalar day xaay am bu demee bay waaj a ñor te ñorut boobu lañ koy kii bu ko defee ñu xar ko xalar ko weer ko ba mu wow moom itam ñu sol ko ci ay saako bu ñu ko solee ci ay saako da koy def ci magasin bi gerte gi it li daan bay ci gerte li ci ëpp maanaam dañ koy baxal ba mu bax ba mu ñor ñu weer ko ci ay nga xam ne mooy transformation bii ñuy def tey nga xam ne kon vision moom romboon na romboon dafa jiitu woon bu ko defee bu ñu jekkee ba nawet ba kër yëpp nga xam ne bi nawet bi jot na kër gu nekk mu dugal fa saako saakoob gerte sa sa saakoob euh, ñambi ak saako bu euh, genn wàllu saako euh, dimb ak daal di yëkkati genn wàllu saako gerte jox la nga xam ne moom ngay dundee nawet bi ba nawet bi jeex bu ko defee ñu delluwaat ci mbayum noor bi loolee nag sëñ Abdou ci boppam ba mu koy def maanaam jiitu gis gis-gisam dafa jiitu woon àdduna ndax fii jamono tollu tey ñuy wax autosuffisance alimentaire moom ba koy xalaat vers les années cinquante nangam ay 1937 waaw ah, booba booba xel yi ñii àggaguñ ci woon te booba moom bari woon na lépp loo xamante ne bii ci njabootu Serigne Touba gi ay teraanga yu mu daal jël ci tool bi di leen ko yót képp ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp ku ci nekk daan yëkkati ay teraanga ba mu ñu mu jënd benn commune car alaaji suñu nijaay Thierno Ndiaye yor ko nga xam ne production bi nga xam te ni maanaam meññet mi daan am ci euh, dër bi yëpp buñ ko mosaan dajale parce que li ñuy war a yóbbu suba maanaam tey jii lañ tey lañ koy sàkk ci tool bi bu buñ ko sàkkee ci tool bi buñ ko sàkkee ci tool bi ba noppi nag jal ko def ko ci ay kees buñ dikkee teg ko ci sareet bi bi sareet boobu jëndagul commune 4 bi mu jëndee commune 4 bi nag lañ ko ci teg ku ñuy wax sa Thiam Goyap euh, Mamadou Thiam kooku bi ñu koy indi ci daaru boobu man tout tànk la waaye boobu fi la ma fekk waaye ñoom ñëpp ay góor yàlla lañ yoo xam ne bi ñuy ñëw ci sëñ maanaam wàllu wér yaram moo leen fi ñu doon saytu seen wér bi mu dikkee ñoom itam ku ci ñëw maanaam melokaan wa ngay mel tax na nit ñi duñu la ñëwee danaa la bu la jàkkaarloo yow danaa la dindi tekki leen ko ñu naan sëñ mu ne dindi leen ko waaye bu jógee ci pilaan bi ba day room tedd boobee bu ko roofee ci bopp bi bopp njañam li bu ko roccee rek gaa yàlla jooju danaan xënd ak nelaw bu nelawee nelawa nelawa nelawa bu nelawee danaa bu ko kenn yee bu nelawee ba yeewu sëñ ab da ko naan da ngaa bëgg a yàlla wala da bëgg a ñibbi nga xam ne la ci moom dindi na ko mu ne ko damaa bëggal yàlla mu ne ko coowu ca tool ba ñu baree bari ca tool bi loolaa leen fa indi woon nga xam dañu liggéeyal yàlla ba sunu borom am ngërëmal yàlla sëñ ab def li li leen war ci moom te bu leen di yeew bi day yëkkati capital boo xam ne ti danañ ca mën a suturlu ëllëgee si am départ mu jox leen ko waaye daawul yar nit képp ah ba ber la wala mu yeewi la te joxu la loo xamante ni loo jàpp loo xam ne ëllëgee si bi dañ ca mën a terat suturlu mën cee tural say bokk loolu lépp muy doon gis-gis boo xamante ni bii kenn mësu ko cee fekk nag ndax ba mu koy def boobu jafe na te boobu xelu ñu doomu aadama àggu fa muy kenn koo xam ne ci njabootu sëñ Tuubaa it mboolem mu seqal sëñ Tuubaa it ñëpp ko wegoon ñëpp ko respecté woon ñëpp ko bëggoon it ndax ay magam dañ ko daan gane si foofu naar libanais yii maanaam naar yi ak tubaab yi dañ daan jógee fu ne ñëw ci dër bi buñu ma saan ñëw léeg-léeg day ñëw ci am na benn tabax bu nekk foofu ci euh, dër bi ñu di ko wax ba ba kii tabax bi te boo toogee ni sunnatu moom ngay moo lay fare sa penku ne ñun ñëw da daan ñëw bu ñëwee foofu lañ koy indi génneel ko yaan bi mu toog indi booli bu booli bu mag ñu daal di jàpp jën yi defal ko ci paan bi mu gis ni jën yi yën du ndaw yi di doxee nii ba di fa def ceeb beeg lépp booboo nga xam ne buñ ñu masaan jógee même dañ daan mbayam ceeb mi mu fa daan defit da daan digg tund yëpp la daan wow waa Mbàkke ak lépp ñëw pour ñu góob ceeb bi buñ ñu ceeb bi yàlla defoon na dañ ko daan def ci ay sàq ay sàq lañ ko dee def buñ piqué mu wutoon jëndoon benn batteuse boo xam ne booba moo daan bojju ceeb bi ceebu Caroline bii nga xam ne booba lépp ku mosaan di teral it la koy teral nga xam ne lépp xorom dong daal mooy jógee ci bitim réew ñëw ci Kébémer lépp ci tool bi la daan la daan ñori taxawaayam ci biir Mbàkke it Mbàkke yi am na fi juróom-ñaari titre foncé ndax daa moom yàlla dafa defoon da daan yëngutu ci commerce yemutoon ci eh, maanaam mbay mi képp da daan yëngutu ci commerce ba tax na titre foncier bu naari masaan di jaay mbaa tubaab yi sëñ Abdou Mbàkke sëñ Ara Jatara lay yebal wala sama jaay Paate Mbay ñooy ànd dem dem jëndi ko bu ñu ko jëndee ba indi ko def ko def mutation bi lépp ci turam ñëw jox ko ko moo tax mu moo dem ko sant Mbàkke moo la ëppoon ay kër ci Mbàkke ba fi mu nekk di ay kër ma fi loolu nag mu doon kenn koo xamante ne bi bu adduna doon ndox tey bañ di ko gëstu kon nga xam ne kon nit la koo xam ne kii maanaam jiitu woon na adduna gis-gis mi mu amoon ci adduna booba nit ñi seen gis-gis agu fa waaye yàlla moom baaxee na ko ndax keppaare ki mu ki muy ki ko yar def ci moom lépp kum yaram danga am xel moo xamante ne bi da nga mën a lijjanti àdduna waxu waxuma laa nag lijjanti say bokk loolu nag moo taxoon taalibe yi ku masaan ñëw ci moom rek ah, daawoo bëgg a dem daaw bëgg a dem fenn ndax dana la yar dana la jàngal dana la tarbiya dana la woon aw liggéeyin woo xam ne ëllëg gi si biir boo fi bu la yewee boo demee liggéey ba mu lay bàyyee da ci mën a da nga ci mën a tedd tedd ci say bokk loolu daal sëñ Abdou Mbacké taxawaayam la woon nga xam ne buñ jekkee nag liggéeyam ak ak ak gis-gisam dañ ko war a def léegi ci comme ni ko soxna si defee ci téere yii gëstu ko di ko jàngale ci école yi ndax moom acteur de développement la day wane nu ñuy liggéeyalee ak nu doomu aadama di jariñoo ci àdduna ndax boo tàmmee liggéey loolu loo wut da ko am te doo soxla kennal kenn lenn te loo soxla faj ko loolu nag la yar ñëpp loolu ci la yar waa Daaru Raxmaan yar ci ay taalibeem yar ci ñëpp moo tax gisoo benn taalibe sëñ Abdou Mbacke boo boo booy gis di ko yërëm amul ndax te fa mu leen xàllal pour ñu war faa jariñu ñoom ñëpp mokkal nañ ko yow ci kanam suñu seen nga yoroo fekke nga lépp waaye gisoo benn taalibe Daaru Rahman boo xamante ne bii képp gimmee na Daaru Rahman ñi di ko ñee te ñee te ñeewuñu ko du ñee kenn waaye moom dañ koy ñee rek loolee nag li ko waral mooy sëñ Abdou dafa def ci ñoom loo xamante ne bii jom ak fulla ak fayda ak nangoo liggéey te jaamu yàlla ndax am na slogan bu mu daan def maanaam maanaam at yoo xoola at yoo xoola at yoo xoola rasul consacrez bu à Dieu mais travaillez na ngeen topp yàlla waaye nag na ngeen ko liggéey loolu nag moo doon slogan boo xam ne bii lépp lu masaki loolu bu ngeen di tàggoo loolu leen di wax fu ngeen ne fu ne na ngeen nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey boo nangoo jaamu yàlla loo bëgg am ko boo nangoo liggéey doo torox ndax loo bëgg a faj-faj ko kon nag lii la amoon ci loo xamante ni bi diggante bi gàtt na waaye nag bu ñu sañoon mu gën fee gudd ba sëñ Abdou Mbacke li ñu ci xam lépp ndax da ngeen maa bett ba préparé ko ndax ci suba rek la ma sëñ bi woo ne ma gars yi danañ la seet si pour nga wax li nga xamante ne bi yéen tout tànk yi nga xamante ne bii ah, ah, sëñ bi da leen da ngeen a gimmee ci kanamam mu yar leen ngir la ngeen ci xam ngeen jox ko wax jot li ko baaxee ko doomu aadama yi kon nag ñoo ngi ñaan sunu sang bi sëriñ Cheikh Dar Rahman mu jëkk a nekk xalifaam suñu borom yokku leeram lu guddal fa eh, njaboot gi mu fi bàyyi ak rakamit yëpp suñu guddal seen fan yiir leen aar leen ba liñ bëggee lee seen ñu dee ci ngërëmal sëñ Touba kon nag euh, euh, sëñ bi euh, yaakaar naa ne leneen loo may war a laaj ñu war ko mottali maa ngi lay toog di la déglu wasalaam Cheikh Abdoulaye ci kàddu yi am na solo lool macha ci loolu nga wax ci Abdoulaye loolu wax ci Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi ci vision bu sori gis-gisam bu sori surtout ci wàllu développement surtout ci bien-être nit ki ci kaw suuf waaye dañuy faral di dégg ni Cheikh Abdoulahi noonu mu amoon vision bu sori noonu mu doon sabab loo ci wàllu zahir ngir nit ki mën a nekk ci kaw suuf nekkin bu rafet noonu la suñu borom dimbilee woon nag ci wàllu baatin maanaam nit ku bari woon ay xar baax la nit ku bëri woon ay karaamaan la loolu ndax am na loo ñu ci mën a tënkal ñettali ñu ko tuuti rek loo xam ne dañu ko mën a jariñoo xam ne moom yàlla def na lu ñu ci fekke am na ñu bare bare ñoo xamante ni bi ay kilifa lañu ñu tey jii seen njaboot a ngi fi duñ leen di indi Daaru Rahman ci oto lañ leen teg waa ak nu maanaam ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu loolu ñuy wax maanaam ñàkkum xel te buñ masaan di ñëw maanaam melokaan wa ñuy mel seen i bokk ba jaaxal leen ba indi ko ci sëñ ñaare bu ñuy ñëw ci oto lañ leen di loolu ñuy wax ay ceen dañ leen di ceene wala ñu yeew leen waa ak nu nit mel rek waxtu woo jàkkaarloo ak nu nit mën a mel waxtu woo jàkkaarloo sëñ Abdou rek day mel ni loolu dañ ko rocci ndax daal di ak noo mën a mel danaan bëggul nag bëggul na maanaam wenn melokaan wi ñu di ko def doomu aadama ci kanam ndax ngir yërmaande ju mu am ci doomu aadama ak noo mën a mel bu dikkee rek danaa la di yewi leen ko yewi leen ko ba nga xam xel nii xaw naa tuuti am aal ngir am cofeel gu mu am ci doomu aadama ban werokaan wi ñu ko war def nee ne kenn war ko mën def doomu aadama waaye ña koy defit jaaxalee taxu ñu defe noona ndax day kooka day yor melokaan woo xam ne bii maanaam bu ñu ko deful noonee mën naa mën naa indi loraange ci diggante ba mu ne moo tax ñooñu ñàkk pexe tax ñu def waaye bu ñu xasee ak ci sëñ bi rek sëñ bi da leen doon wax tekki leen ko bu ñu ko tekkee mën a tekki leen ko bu ñu ko tekkee rek bu jàkkaarloo mooy da daan di ñokke bi bu ñëwee da daan na jël loxoom bu tedd ba rek rof ci bi bu ko roofee ci njañ li buy rocci rek day da nga waa ji day daal day daal di ko rek ndax xëndañ di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw di buy nelawit danaa leen bu ko kenn yee bàyyi leen ko ba mu yeewul boppam bu yeewoo it da ko naan waaw da koy jaar ci turam nag kaay mu ñëw mu ne ko wala lan moo lay metti mu ko ne dara métti ko mu ne ko léegi dangaa bëgg a toog liggéeyal yàlla wala da ngaa bëgg a ñibbi yaar yooyu la lay laaj moom boo ne damaa bëgg a liggéeyal yàlla mu yabal la tool ba mu yabal la ca dër ba waaw mu yabal la ca dër ba nga di fa liggéey di fa liggéey di fa liggéey dëggéey ba mu war laa wàccee bu la wàccee it bu la wàccee dalay boole njariñ loo xam ne lii boo demee ci ña ña la fi indi woon danañ xam-xam ne yow mi kit ki def na ci yow loolu waaw ci wàllu fajit googu ma lay waxit tax na loolu dem na ba feeñ na ci njabootam loolu xam nga ci lu bari ndax dëkk nga yàgg nga ak sëñ Cheikh ndax euh, bañ ne ko ba moom docteur l'islam lañ ko lañ ko tuddee woon lépp loo xamante ne bii maanaam ak wopp soo mën a yor ak jaaxle goo mën a yor waxtu woo ñëwee Daaru Rahman loolu moom faju na ci jamono sëñ Abdou Mbacke ba ci jëm ba ci sëñ Cheikh ñëw ba ci doomu gis nga sëñ Cheikh daawul bindal kenn ordonnance waaye boo toogee rek. dama saa dégg mu wax benn noo ko ne daal daal raxmaan de ku sa mbir nat dafa ju doo fi ñëw moom suñu seex kon nga xam ne kon tiir ba mu yoroon ci bàyyam ba tey mi ngeen moom te daaru it waaw ak ndox mi ndox mi ci boppam it gis nga ni mu ko fi defee maanaam dafa demoon ba gëndale ko ban lii ndox ko liy foofu yëpp benn dégg la benn këy boo xam ne bi ceeb beeg lépp dañ ko ci daan bay di ci bay ay arbre ci di ci def lépp nga xam ne loolu moom lu ko yàlla lu ko yàlla joxo loon la waaw te am na benn kii boog ngan goo xam ne gii euh, sëñ Mourou Moustapha da leen woon ngan euh, euh, tayif moom sëñ Basirou ak sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadir ñoom ak sëñ Saliou njabootu sëñ Tuubaa yëpp sëñ mu dajale leen fa muy waxtu nawet sunu borom daal di def nawet booba xaw a nawet tool yi soxla ndox lool waaye sëñ Abdou moom mujj ñëwee ba mu ñëwee sëñ Mor Moussa ci boppam dafa daal di jóg euh, gàttandu ko daal di ko ah borom ndox mi di ñëw na kon léegi ñu am ndox sëñ Abdoulaye daal di ko bu la soobee rek delloowaat ko cër bi ndax xam ne boobu mooy sëñ Tuubaa nga xam ne kon ñoom liñ daan maanaam wormaalante gi ñu doon wormaalante ci seen biir ñoom dang ñoo ko ñoom ñoom dong la lox lu sëñ bi moo ñaale ci ñoom la kenn ku ci ne rek dem nga ba sa moroom gën la sa bopp loole nag bi ñu demee ba nga xamante ni ganale googe jeex na bay dem sëñ Abdou Lam tàggatoo ak sëñ mu Moussa dana luy bañ a tooy looy wañ mu lu waay bañ mu tooy daal na ko fat ndax dafa mel ni sunu borom dafa yàkkamtee wàcce ndox mi kon loola ndax ba ko sëñ Bourou Moussa ne borom ndox mi ñëw na léegi ndox mi am moom itam ba muy tàggoo mi da ko lu waay tooy lu waay bañ mu tooy ko fat ndax dafa mel ni borom ndox mi daa yàkkamtee wàcce ndox mi kon ñaan googee ñoom nga xam ne kon loolu bañ nañ ko ba li borom jën joor ndox lañ ko daan wax. Ah, boo foofu ci box bi booy génn daal Rahmaan it ci guy yooyu boobu boobu boobu mas naa toog ak ñoom sama baay ñoom sama baay moon ngàtt ñoom mag ñi magi daal Rahmaan yi ah, ak baay ñoom Amar Kanji ñoom ah, ak baay Ngañ Siise ak magi daal ak ñoom baay Idi Kayre ñoom ñëpp nga xam ne bu masaan tàkku saa foofu da doon am boo xam ne bi lu toll ci juróom-ñaari guy yu mag ñoo fa newoon nga xam ne foofu barab bu naat la woon daan sedd waxtu tàkkusaan woon dafa daan yóbbu mag ñi di leen fa berndeel am na benn boo xam ne bi dafa toog ni mu toogee nii ci pilaan bi jublu penku rek bi mu téenee rek ay yàlla ji daal di dënnu tàmbali daal di ndox mu ne moom ko sunu borom daa mel ne dafa yaakaar ne li ma téen defe ne tax na mu defe ne dama bëgg ndox kon nga xam ne ko kon jubóo woon nag sunu borom ba lépp lu mu ne ci xelam mbaa mu xalaat ko rek sunu borom fekk ko ci waaw kon sëñ Abdou Mbacke moom kenn la woon ci doomi sëñ Touba yoo xam ne mag ñi magam yi nga xamante ne bi ak rakkam yi mu bokkal sëñ Touba ñëpp amoon cër buñ ko jox amoon fuñ ko teg ndax kenn ku ci nekk daana jël ay teraanga ci boppam fekk la fa ko toog jox la ko muy góor di mag di ndaw kon ñoom euh, nañu àndee woon na leen seen wayjur boolee woon la lañ àndee ba kenn ku ci nekk ba fi mu nekk nii feeñ na ci njabootu sëñ Abdou Mbàkke gi seen diggante ak sëñ kon nag ñoo ngi sant di gërëm di leen sant yéen ñii nga xam ne yéen la sëriñ bi yebal di ñaan samadiya euh, di ñaan nag lii ñu fi wax it yàlla nañ njëriñal islam te it sunu kilifa yi nga xamante ne bi ñoo leen yebal di waa Daaru Rahman Ah, di sëñ abo mi nga xam ne moom bañ ne ko ba dañ ne sëñ abo xasaayit rëbb lii muy defal maamam yal na ci daje ngërëmam ak i bàyyam ak i rakam yéen ñii jéegoo di koy daal raxmaan ñëw fi fekk si ma man mu xeebu mii nga xam ne maa gën a néew xam-xam ci waa ci taalibe sëñ Abdou Mbacké yi ngeen ñëw fekk si ma ngir di jël si lii may wax te lii may wax it doon njëriñal ñëpp di sant sunu sëriñ bi sunu xalifa bi sëñ Muntaxa yàlla bàyyi ko fi ak rakam yi njabootu sëñ Tuubaa sëñ Moodu Abib yàlla bàyyi ko fi moom itam ak i rakam ak njabootu si Cheikh Daaru Rahman gépp ba liñ bëgg a liggéeyal seen maa ñu day ci ngërëmal sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm naa leen yàlla leen yàlla jàppale jërëjëf sëñ Abdoulaye Sarr ci kàddu yi am solo yi mbokk yi kon yoo ko déggandoo ñu ngi woon ñoo ngi woon fii ci Mbàkke doon fi dajoot benn mbokk ci mbokki taalibe ñu ko wax si Abdoulaye Sarr comme ni ma ko waxee léegi ci ubbite gi rek mu nekk jëmm joo xam ne am na tawféex yi gane àdduna ci kanamu Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi sëñ Abdou borom dër bi tuddee ko boppam mu xam lu bari ci dër bi nag xamal nañu lu bëree bëree bari ci gis-gisu Cheikh Abdoulaye Mbacke bu sori ci kaw suuf ak Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi ni mu amee woon yéene doomu aadama nekk ci kaw suuf nekkin wu am solo nekkin wu jaar yoon ba mën a jaamu boromam kon mbokk yi ñoo ngi leen di sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa